opération bi ñu faskee ne tey lancé yalla def na mu nek réussite am nañ ci ndam ndax lo yëkki Touba kilifa diine ñew mairie bi ñew askan web ñew ku nek jël balé ICG bi nga xamné mom la gouvernement bi taxawal ñew indi ay engins gis ngeen caterpillar li si ginnaaw ak euh, camion yëpp xam na ne kon ndekete am di jox nañ ñu ay moyens yo xamné ne mën liggéey liggéey bi ci Touba liggéey bu ci ayib mooy wax euh ni mu ko waxé Touba Euh, aada la fi ndax dëkk bu mel ni tuuba ak li fi nekk ci fi yeewoo ci doomu aadama ak li fi am ci ay xew xam nga ne bu ñu meloon neneen kon bu ñëwee tilim tilim bi kenn du ko mën a kenn du xam fooy commencé ndax euh, dëkk bu rëy la bokk na ci dëkk yi gën a peuplé ci réew mi te li fi am ci xew du am fenn ci réew mi waaye niñ ko fekkee euh, nag tane na mënoon naa gën a yéeme loolu day wane rek lu ñu xam la ñoom waaye nag fas lu mu mën a daw daw daw du tere ñu fait ah nous ñu ci mi chef de l'État ñom sax fait euh, bi gouvernement bi président de lancé appel bi ñu fait def tép tay ñom dañoo jappalé sax dafa ndigal la manam dafa dafa dafa dafa une ndigalu bi C'est sëñ bi la ci sax na ci ay preuve ndax yoo xamne ne nañ ko ci benn bëss ci ndégg sëñ Muntaxa bobu sax nekkagul khalif and ak sëñ Abdou Latif Mi. kon bokk lu ñor sëñ ak ciat mom lu ñor mouride la waye lu ñor sëriñ bi bu yàgg la balay li di ñew kon bok xana wakk bu tajé gessu la rek li chef de l'état lancé tay réew yoy di def Touba kon desul gënaaw taxaw nañu gis ngeen goor ñek jigen ku nekk ngi sa bale wa ICG ñu ngi fi euh, indi sen maga sen matériel yépp ma yaakaar ne journée boobu luy réussir la tey ku gis lancement bi xam ne lu réussir la te ñoom wax nañu ne euh, léegi lañ ko wax seen discours Birane Gueye wax na ko sëñ Abdou wax na ko euh, daayira yi sax dañuy seetal dëkk bi am na ñoo xam ne semaine bu ne kon boog lii dafay ñëw yokk ci loolu ñoom ñëpp nag bu ñu boolee seen doole ku ci nekk daan tànn bés dina am bés bi nga xam ne mooy premier samedi di mois de chaque mois gouvernement bi jagleel ko ñoom ñëpp nag dañ leen ñaan bu boobaa képp ku ci daan nettoyé di beru dangay daal di boole say jumtuwaay ICG ñëw jàpp ci premier samedi nous ñu nettoyer dëkk bi mu lo dafa yokkul xar euh, karaw ci xar mi de waye day day taral liguey bi encore ndax ku nekk dañ daan occasion déjà ñu ne am fexé bu bolé sen doolé lolu gouvernement bi dina fexé ba lolu jaaré fofu ba képp ku di di di di di premier samedi bi Touba yu ni mu jaadoo ci réew mi yëpp noonu la jaadoo Touba waaye rawatina nag dëkkub gan ndax Touba bës bu nee mu ngi mu ngi accueillir ay gan. Mm. yu jege fu ne ci àdduna nag te gan nag li wolof di wax mën nañ ko tere lépp ba mu des xool ak nettali. Mm-hmm. waaye am na leneen itam gan warta ñëw cib dëkk jële fa indi fa wérgu yaram buy dem daal di fa jëlee feebar ndax ab salte waaye loolu yaakaar naa du daal benn gan bu ñëw Touba yaakaaram ne fi mu ñëw fii ziyaare fi war fee ñaan war fee feddaliku yéeneem jële fi feebar yaakaar naa ne nii ñu taxawee ak li ci président dolli loolu mën nañ ko garanti ne Touba ku fi indi wérgu yaram di nga delluwaat la ko wérgu yaram mhm. ku fi indi taar ak set di nga delluwaat set yére yi fi indi yaakaar naa ne boo demee àgg sa kër doo simeeku mën nga cee doo soxla mën nga cee dem liggéey mën nga see euh, teral gan loolu daal yaakaar naa ne laa mën a wax ci bésu tey bi mhm. di rafetlu seen teewaay yéen ñëpp nag di leen gërëm ci mobilisation bi mhm. di am yaakaar ne daal euh, premier samedi chaque mois nii ñu ko tàmbalee nii noonu lay continuer ngeen ñaanal ñu ko sëriñ bi daal ñu waxal ñu taalibe yi ne bëgg nañ samedi bu ne chaque mois tubaa ni mu tàmbalee noonu rek lay saxe liggéey bi daal di mat sëkk ba ku keneen ku war a yox yox itam soo ñëwee fii gis li Touba di def boo demee daal di lax waat xam ne ginnaaw tubaa wàcc ñu si ay loxo kon boog kenn amul dara wàcc si ay loxo parce que li muy jot ci gan ak li mu am ci xew ak ni mu tollu ak li fi yeewu ci doomu aadama amul fen kon boog bu ñuy wàcciwul seen ay loxo keneen foo mën a ne waroo wàcc ay loxo